ay ca ñu bàyyi la ak sa gan alaaji jaajëf saay laayen lion yow c'est que sa tur bi da mel ni ku aay ah laayen jaa laayen jaa signifie le lion la lumière <laughs> lion la lumière Le lion, la lumière. Ah, mon message, ma devise, prions, parlons et marchons pour la paix, la paix et la lumière du monde. Ah, all effectivement. Mm. yow da mel ni ku aay. non yow yaa aay. <laughs> est-ce que aay nga. <laughs> bon nuyool ak sénégalais yi big love big love la India le lion la lumière mon message ma devise prions parlons et marchons pour la paix la paix et la lumière du monde avant tout bon maa ngi nuyu sama waa dëkk waa Saint-Louis di leen bëggee à 100 pour cent. Saint-Louis encore waa waaw waa gis na benn instant 100 <laughs> pour cent Saint-Louisien aussi tamit di bëggee waa Sénégal yëpp benn uh-huh. instant xam naa ku lim rek da ngay jiw mais maa ngi bëggee waa. Euh, Sénégal yëpp di la nuyu yow Sa Ndiogou di mm-hmm. nuyu tamit ñi ma fekk si plateau benn instant mm-hmm. sans oublier aussi tamit mm-hmm. oustaz ki euh, Maodo Malick maa ngi koy bëggee bu baax a baax oustaz Maodo Malick mooy kat ah fii la nekk ci kër gi oustaz Maodo Malick <laughs> waaw oustaz Maodo Malick Ndiaye waaw waaw Maodo Malick nekk mm, kii. tam dëkk Grand Médine waaw mooy Ndiaye Ndiaye la sant. tam tuuti nii. waaw Ndiaye la teint noir nii quoi. non non keneen ki la am na ku njool nii. Ah. waaw d'accord kuy ànd ak Talassus. moom dina xam ki daan ñëw ci yor yor dina xam waaw waaw kooku la aussi tamit di bëggee le grand technicien Modou Fall maa ngi koy bëggee. Modou Fall ah d'accord aussi top waaw di bëggee waa Walf yëpp benn instant. ok all right. Euh, Laye Dia. comme ñun xamuñu yaay kan. Mm-hmm. Euh, ñëw nga di ngand ngandalu mhm. naan peek lumière ak lumière pee mhm. yooyu yëpp nga ko fi ñoddi mhm. jóge ba ndar ñu bari miinuñu la dañuy xool d'abord lan nga fi indi balaa ñu lay mën a parce que ñu nit du ñu tëb tëb euh, di la wekkal garaat wala ñu lay wekkal garaat te xamuñu yaay kan effectivement kon ci lii nga xamante ne bi ci la ñuy waaj a jëm mooy définir sa carrière ëllëg mën nga fee jógee ba faw mhm. mën nga fee jógee it jëm ca kanam boo yeboo nga xam ne sa avenir moom nga tay la ci plateau bi laayan jaa kon ñu dem ànd ak waa régie déglu la ndax da ngaa war a bàyyi wala da ngaa war a continuer la paix et la lumière du monde waaw bàyyi ñu déglu rek yow it <laughs> mu fi beneen ku kii aywa yow pour yow lii jàmm la lii ngay waye cent pour cent sax benn instant jàmm jàmm jàmm jàmm la paix c'est la lumière du monde jàmm jàmm jàmm jàmm la paix c'est la lumière du monde li lii li pour yow li jàmm la yow. mais yow non mais yow yaa ngi teg fitna. non fu jàmm nekkul dara du fa non waxuñu fu jàmm nekkul loolu yëpp waxuñu ko mais yow fitna nga ñuy teg. sa ah, jàmm ji fitna léeg-léeg nga teg nit. defe ne yaa ngi koy wutal jàmm mais yaa ngi koy teg fitna. Ah, ban ban ban ban fitna ma ma ma xam quoi benn no mhm. c'est que mhm. xam nga. Mhm. bu ma la déggee ni ngay euh, waye reggae mhm. euh, sa reggae bi dafa takk suuf. ah daa takk suuf. waaw léegi waxuma la kii bi quoi waxuma la tëggin bi. Mhm. maanaam voix bi parce que mhm. tëgg bi man sax pour man neex na tëgg bi. mais ni nga ciy waye moom moo metti waaw loolu nag moo neex benn instant. nga ci waay. ah bien sûr <laughs> reggae nga wax de. le message dama ne tëgg bi baax na mais ni nga ciy wayee laax man moom moom moom moom moom lii bu ma la mënoon a yóbbu ci yoon yóbbu la ci yoon ci ni nga ciy wayee aco boog nañ dem ci yoon ah. <laughs> non bu saxsoon avec la paix moom franchement bu ñu demee ci yoon dama lay tëral <laughs> ma ni ak ak la paix suñu demee ci yoon ma tëral la <laughs> benn instant waaw waaw dama lay daan xam kii li mooy wane sax yow nekkoo ci cadre jàmm yow benn instant non si si nekkoo ci cadre jàmm ah bien sûr lu tax nga tëb tëb choisir musique reggae parce que reggae musique yu révolutionnaire la quoi tey jii euh, gis naa façon kiiwu musicale bi. Mhm, bien sûr laal bu Lucky Dube ah n'est-ce pas. façon bi nga xamante ni bii moom ngeen koy def gis naa. ki doon fecc comme style boobu la quoi. 100 pour mais mais ñooñu. Mhm. Mhm. Euh, ay kii lañ quoi ay révolutionnaire lañ. mais yow révolutionnaire lan la yow. waaw bon reggae bu ñu ko dee bu ñu ko waxee rek message la quoi benn instant. foog nga am message pour mën ko véhiculer. message bi moom xam nga yow message bi soxlawul ko jàmm jàmm rek amut leneen loo xam ne mu ngi ci biir. ah xanaa dégloo musique bi. la paix et la lumière du monde. dégg nañ laal na Sénégal. yow ah. fii nga toog nii da am jàmm moo tax. boo hmm. amoon boo amoon jàmm doo question. Hmm. ou bien. dama am jàmm waxante dëgg ah, ah, pour yow man maa ngi am jàmm quoi pour yow jàmm am na quoi nii. jàmm jaa ngi ñëw clim baa ngi tàkk. <laughs> lumière yaa ngi tàkk benn instant. mais jamono ji ne dëkk bi nit ñaa ngi ci fitna. nit ñaa ngi ci stress nit ñaa ngi ci loolu du jàmm. waaw boo fekkente ni bi yow da nga nekk fii tey. Mhm. yow war nga yëg ni. Mhm. réew mi nekkuñu ci jàmm. ah bien sûr morceau bi loo tax moo ñu indi que pour la paix dans ce monde et dans ce pays benn instant. Hmm. xam nga benn instant parce que euh, àdduna surtout sax Sénégal toll na fi nga xam ne il fallait que ñëpp jógandoo wax ñaan ngir jàmm mën am. képp ki nga xam acteur nga rek. te yow nii nga ci xalaata waaye jàmm gi quoi yow message bi nii nga ko bëgg a ah, jàllale. waaw bu dul lii dama dina ma jaaxal <laughs> mënul weesu lii quoi je pense. Hmm, mënul weesu lii. non non franchement parlant. lii daal ah. tu vois. Hmm. Omar. Euh, euh, euh, la paix c'est la lumière du. la paix est la lumière monde. la lumière du monde mille pour cent <laughs> <laughs> waaw di la féliciter encourager. Mm-hmm. ah nda ndar ba fii ah. bien waaw aussi loolu mm-hmm. da lay encouragé bu baax di la ñaanal. Ah, ah, ah. mais aussi tamit jàmm moom. moo gën fii moo gën fee te lu jàmm jàmm ko gën. sincèrement instant bi dañuy way wi ñëw na ci waxtoom. si si ñëw la mm-hmm. wax ci jàmm. Mm-hmm. pour réew mi. bien euh, nga ni jàmm mooy lumière. waaw la mm. paix et la lumière du monde quoi. maanaam nanu dox nanu wax nanu ñaan. pour que la paix quoi dans ce monde. mais est-ce que jàmm bu waree am. mu mm-hmm. euh, dëgg du ko jiitu. waaw bien sûr parce que olof ne fu dëgg amul jàmm. du ko am waaw bien sûr mooy li ñuy dox rek xam nga du question danaan jàmm jàmm rek. Mm-hmm. mais fa lekk ñu dox ko wax ko ñaan ko benn instant. Mm-hmm. réew mi am na ay kilifa ay kilifa diine ñu ngi fi. Line Dia chanteur la Sandiogo acteur la je ne sais pas keneen ak keneen ñëpp nañ jugandoo waaw nañ nañ nañ xam nga wax ñaan ngir jàmm am parce que instant bi surtout Sénégal sax fi mu toll nii yéeme na trop quoi ñun ñëpp a ko gisandoo benn instant mm-hmm. kon wax dëgg yàlla foog ñu dox wax ñaan ngir jàmm am quoi. Mm-hmm. ñu dox ñaan ngir jàmm yow daal yow sa jàmm ji sa participation ci jàmm ji mooy li nga def nii quoi. waaw yaakaar nga ni mën na ci def benn kii. ah bien sûr lii def nga ko clip dugal ko ci YouTube bi. est-ce mi ngi ñaata bi doon bon pour l'instant nag xamoo ko franchement. xamoo mais ñaata nga ko bàyyi woon. Euh, noo gën bi ñu koy bu xool waaw noo gën naa xool nag franchement. waaw da ngay boo tapé line ja rek L I N G nga dugg YouTube. Hmm. waaw jàmm waaw ma ñaata bii la. du <laughs> tàmpeel loolu. Euh, ba am na yeneen production yu dul. Euh, euh, yu dul jàmm ji rek. bien sûr bien y en a d'autres hmm. benn instant xam nga rek am na. yeneen production incha yi nga xam dina tëll après jàmm bi quoi benn instant. ay yeneen production. waaw effectivement mais pour le moment comme que jàmm ji daal moo xew benn instant te moo war. tax mais jàmm ji est-ce que yaakaaroo ni comme ni nga ko wayee nii maanaam da nga ko way way boo xam ni euh, réew mu ne réew mu ne mën na ko utiliser mhm. comprendre nga maanaam réew mhm. moo xamante ne bi comprendre dégg na li nga wax rek mhm. mën na ko utiliser. Mhm. mais est-ce que tey comme fi réew mi toll nii boo mhm. gënoon a def ki message ciblé nga xam ni dal nit ki da koy déglu. Mhm. xam ni sa réew ngay waxal. bien sûr et puis nga xam ne duñ fi nekk liggéey mais dañuy xam ne da ngay joxoñ est que loolu bu boobaa. bu yàggul de il y a neuf jours. waaw deux cent quatre-vingt-onze jours. neuf jours nga wax nga ne deux léegi comprendre nga. léegi. est-ce que yaakaaroo ni noonu nga waroon a waroon a def. waaw parce que tey jii. Mm-hmm. am na loo xamante ni bii xam nga ko. gis nga Saint-Louis. bien sûr étudiants yi chaque jour. ñu ngi kii gis nga manifestation yi nga xamante ne bii ñu ngi am. effectivement gis nga fi réew mi toll gis nga napp ji. gis nga mm-hmm. kii yi nga xamante ni bii moom la ñuy lool. Mm-hmm. yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne dañuy causer. Euh, ñàkk jàmm. non si bien est-ce que tamit waroo boo laaloon yenn ah. genre kii yi du gën a loolu. mais ñëpp laa laal <laughs> waaye boo déggee maanaam opposants yi ak dirigeants yi jeexal na wax benn sa ça dina ñëpp toog xam nga dox wax ñaan ngi ñëw dialogue quoi waaw bien sûr dialogue ah, kon yow da nga yow da nga ànd ci dialogue waaw bon baax na benn instant mm. wàññiwul dara de day indi jàmm rek mm. parce que tim bu nu waxtaanu franchement jàmm du mën a am quoi dëgg yàlla mm. comme ñu toogee nii rek waaw instant bi yaa ngi muy poser question mais su ma la répondre doo ma dégg n'est-ce pas il fallait que pour la paix dans ce monde franchement parlant surtout Sénégal sax dañ toll fi nga xam ni wax dëgg yàlla avancement rek moo mu war quoi. Mm. Euh, parce que violence wax dëgg yàlla euh, arrangé wu ñu. Mm. parce que dëkk bi daal des na avancer waaw des na avancer loolu la. non ci lépp rek ci lépp xam nga Sénégal booy xool actuellement benn devise la ñu am ñun jeunesse bi. koo wax mm. tey fi mu nekk nii tey su ma doon àbb Sandiog lu mu ngay njëkk wax che bàyyi dëkk bi dafa dëgër wala maa ngi taxalee. kon xam nga dëkk boobu benn instant euh, xaw na dese développement n'est-ce pas dëgg loolu dëgg voilà effectivement kon il fallait lekk état bi ak euh, ñi nga xam te ni yàlla jox na leen doole ñu veille si lool pour bu ko defee dëkk bi mën a am avancement quoi comme yeneen réew yi rek franchement mm-hmm. Mm-hmm. waaw man loolu laa gis. yow ndar ndar pire nga wala dolli ndar nga <laughs> non man xool ma rek cent pour cent mais nag bon attends moi je suis un rasta xam nga rek Ah. benn instant je suis africain je suis sénégalais. mais non que man yow ni ngay waxee ni nuróowu ma vrai parce que man moom vrai rasta <laughs> maam. waaw <laughs> non saa yi dafa dafa dee quoi benn instant mais man nan la waxee fii. non non ma dafa amul fling wala que a passe. non euh, yow vrai rasta la. gis nga gis nga waa parce que. franchement non vrai rasta ngay. laal kii non si loolu laay dund nag ko yaa ngi koy laal. lan vrai rasta comme non waxal rek da ngay da da ngay ñeme quoi parce que laay njaa nga toogal benn instant le lion la lumière looy posé rek na ko ñeme ah vrai rasta faaw ngay yéeg de yàlla est-ce que yaa ngi yéeg waaw yéeg comme nag yéegi daa bëri de vrai rasta quoi yéegi daa bëri façon de yeah comme mm, mm, mm. waaw waxal ma dégg rek eh, rasta maa ni ma gis man ñi ma gis ñëpp ñuy wax rasta ah. waaw ah comme su ma déggee est-ce yaa ngi laal yamba quoi. Oh. <laughs> ngeen daan siiwal ah. la mais léegi nag ah. moom loolu. Eh? loolu defe naa amul ah. non franchement man nag yamba man franchement dafa nekk li nga xam bëgguma ko quoi man mosuma ko sax utiliser. franchement waaw léegi lu tax rasta yi. Mhm. ñoom ku leen gis rek. Mhm. sa xel day daw ci loolu. parce parce que lu indi loolu à l'époque moo demee noonu quoi mhm. peut-être seen comportement. ak aussi tamit base fu mu jugee. Jamaïque. mais parce que booy xool. restaurant foo ko bëgg fekk sax bu wax day gëmm. voilà effectivement eh, effectivement waaw loolu moom eh, lay doon quoi. parce eh. que gisee ni di wax di gëmm wala di téye boppam souvent. Hmm. mën a nekk benn inspiration buy ñëw. ci moom waaw loolu nag lay bañ mu capté mu rëcc ko quoi moo tax ñu indi genre kii euh, effectivement. muy def kii yooyu quoi waaw genre geste yooyu quoi. Hmm. mais man moom wax dëgg yàlla yamba bëgguma ko mosuma ko utiliser te du ma ko digal benn jour franchement parlant. Hmm, baaxul mais rek ak Sénégal. est bu fi dox. bon dina dox. Sénégal Dread Maxine moo fi gis nga ko doxut. ni mu war a doxee. yaa ngi produire di am fooy joué wala. waaw te moo fi euh, fii nii quoi. est-ce que yow loolu tiitalu la parce que man tey bu ma xoolee Dread Maxine nga xam ni. Hmm. bon vraiment man li muy way sama xol la jëm. parce que dafa aay. Hmm. Euh, mais ma gis ni musique bi percé wul fii quoi. doxul comme ni nga xam noonu la war a doxee est-ce que loolu tamit encouragé na la pour nga pousser ci musique boobu. Ah, parce que fii euh, ñi ngay gis léegi rastamaan yu ci bari sax léegi ay taasu la ñuy def. maa ngi sama waa ji ah, ab toj dëkk bi <laughs> clap yoo <laughs> ah, a jaar ci kon am boo ko xoolee xam ne rasta la. mais dafa dévier. waaw dafa ay ama man ci gaay Euh, euh, reggae dance ak reggae roots. waaw waaw xool benn saa damay def aussi afrobeat yaw ma ci kii reggae. Mm-hmm. comme ça waaw da nga def world music quoi. waaw damay def world music. afrobeat ah, euh, dance dansoo sax la ëpp lu may est-ce que mënoo ñëw ci. système am boobu bi. Euh, non bàyyi ma sama style ku nekk sa style. am <laughs> dafa ay de. non ma sama style parce que yow da ngaa xaw a nuroog am sax. non yow moom yaa niroo nuroo nañ ah am na ay traits. <laughs> yenn niroo ah, ngeen. non non non am am daanaan la. am mais dund wala da ko booleeg beneen liggéey. no en fait man nag franchement dama métier quoi. parce que à part la musique peinture bâtiment lay def ak euh, étanchéité parce que si laay produire sa sam musique si laay sama clip yëpp si laa koy financé mhm. benn instant mais yaa ngi am retour sur investissement parce que booy investir dara da nga ci war a xaar dara waaw bon mooy lii rek avancement wala passion bi ngay dund nii wala passion bëgg nañ avancer bëgg nañ dem fu kawe quoi benn instant mhm. mais xam nga rek àdduna euh, non bien sûr damay tukki damay dem ay Mali ay Côte d'Ivoire ñuy man nag seeg xam nga au fait bëgguma focaliser wala rek ma canaliser wu ci reggae bi quoi man hmm. ouverture bi laay dund quoi xam nga rek war naa dem jouer ak mbalaxmaan bi war naa jouer ak rappeur bi war naa jouer ku mu mënti doon quoi benn instant parce que xam nga kenn du ko tëj quoi boo ko tëjee rek baaxul hmm, léegi demal jouer am bongo benn waaw am benn problème hmm. comme ko wax nga dinaa ndar dëkk la boo xam ne bari ay ah. bërëb yi ay nit di daje di noos. est-ce que yéen a ngi dem ci bërëb yooyu parce que ña fay ne nag lu ci bëri touristes yi. Mm-hmm. genre musique bi ngeen di def moom lañ bëgg. non si si bëgguñu amoon na benn programme bu ñu fa jàppoon mais après muccul antu quoi. Ah. mais xam naa daan ko dox si fan yii incha allah. yéen ko jàppoon quoi. pour fas yéene woon ko def. waaw benn instant yow da liggéey di def ci rek bi. yaakaaroo ni loolu. Mm-hmm. Euh, yow est-ce que yaakaaroo ni da root waaw moom bon au fait. ça veut dire di tànk pot di sotti ci tame bi. waaw mais xam nga c'est dafa am yoo xam dafa dafa naturel quoi artiste d'abord bu nga wax avant tout da nga am métier quoi. mooy sa gànnaay xam nga. bien vrai que musique dëgg la même boo suyee ba kii waroo bàyyi sa métier. xam nga parce que moo lay gunge quoi dëgg yàlla. Hmm. yaa ngi ma tey li ma passé ou bien lu ma kii si métier bi laa ko kiiwee. kon il fallait que ma respecté ko ci métier bi ngay def. waaw di kii ci li est-ce que amagum nga ci rek bi dara. wala mis miss métier bi mooy dugalal. bon ñi ñi ma ciy xam de wax dëgg yàlla franchement. waxuma la xam xam doo nga doyut quand même. mais dina ñëw dina ñëw benn instant ñu ci yoon bi. Ah. affaire bi noonu la. tepp tepp ah, yaa ngi invité ma télé kañ benn instant lu tax <laughs> <laughs> affaire bi loolu la quoi ci vois xam nga. Ah, gis nga eh, yow rasta man yaa ngi jàpp si kim di kii <laughs> xam nga may wax dama pourtant nag dama la ko bëgg a jox de boo amul sikkim de eh, eh, naa si yow. <laughs> yaa ngi yaa ngi yaa ngi baram. <laughs> yaa ngi dégg léegi lan man c'est mm-hmm. lan moo parce que nit war na am lu ko inspiré ba tax mu daal dee taamu li nga xamante ni moom la ñu wax lan moo la inspiré ba tax nga tam choisir musique reggae. waaw en fait c'est à base dama doon déglu ay Bob Marley Lucky Dube Alpha Blondy noon la demee. mais bi ma waaw ñu bari mu ci lañ jaar. effectivement mm. mais bi ma defee sama voyage en Côte d'Ivoire euh, entre 2006 ak Mali nag euh, inspiration bi ci la gën a ñëw. Ah. waaw ma dayanteeg ay Ngand comme Tiken Jah Fakoly. Tiken Jah ak aussi tamit l'autre gars am na benn chanteur malien Aziz Wanda voilà. Hmm. maanaam mu ko Tiken Jah daje ngeen. bien sûr daje nañu. Hmm. bien sûr c' en 2006. Hmm. maa da laa romb. maa fekk Mali non non Mali <laughs> romb lan. man ay rasta <laughs> ñu doon naan yow romb. <laughs> maa ngi moom këram fa laa ko fekk benn instant. Euh. mu accueillir ma. Uh-huh. nga ne ko da def reggae. non non. waxu ko loolu jaar kii rek pour. ah xam nga romb waa loolu. non déedéet saa ma mi ngi mel ni ma ne non <laughs> man xam nga am na jamono bon. non xam nga loolu dafa am fu muy commencé. kii jaar nekk damaa romb buntu këram. non mais non man romb buntu këram de. man damaa dem këram mën nga faa dugg ñaan ndox. man niroo naa la ko une semaine espoir boobu nag dama doon jaabante entre Laza mooy euh, ci beneen euh, artiste bi ñu koy wax. Aziz Wëndër da nga doon peinture. Aziz Wëndër ah. da doon peinture kër. <laughs> da nga doon peinture. waaye léegi bu doon peinture sànce la fa amoon. <laughs> waaye <laughs> wóor na yàlla sa peinture la la def ah, nga doon peinture. non du la déet ba tey. <laughs> yaa ngi ñëw de yaa ngi ñëw de. <laughs> bul ni waaw xoolal la fa bul ni la fa am déet mu toll. Mhm. le fait nga def këram une semaine. reconnaissance la pour la reconnaissance boobu ngeen am foofu. est-ce que am ngeen ko Sénégal fii. Euh, comme ci ci ban anam. maanaam ñu rek xam na loolu reconnaissance la fekk xanaa man du ma dem kër Tiken Jah di fa def une semaine. fa yóbbu quand nag sànq. non rek a fa yóbbu non non en li ma yóbboon mooy découvrir quoi. Mm. nan milieu naka la parce que xam nga rek. da nga doon jàng quoi. waaw non xam nga c'est que boo ciy dugg des fois day baax nga gisante comme te ngand yi quoi. xam nga rek benn instant. xam ñoom boo leen gisee daan la wax dañ lay yokk effectivement mm. parce que Aziz Wanda bu ñu gisee daf ma njëkk wax parce que man kooku la giseel waaye kee <laughs> waaw la sànce la woon <laughs> non non non diggante <laughs> mooy dem gàllankoor fekk lu am mu nekk en sànce presque ci gaale bu pare laa ko fekk benn instant mais bon bi ma gisee Aziz li ma njëkk conseil mooy est doo def musique parce que niroo naag lu baax ci yow quoi. ah boobu commencé ko non non non dama doon passage nii rek parce que maa ngi jugee Côte d'Ivoire. Ah, mm. fekk commencé guloo. non non fekk commencé ko. mais ñu doon répété ñu ma leen wax lu leer ensemble benn non moment boobu demoon. xam naa ne jàpp naa ko. saa yi fii gis nga boo fi ñëwee ah? non naaj bi ay naaj bi nga fi man sax li ma fa nekkee moment boobu sax def moon chantier dama doon jaay franchement. Hmm. waaw ay body ay yooyu comme ça. ay ah da nga doon jaay voilà effectivement boo sax dama ko woon ah, pour chantier. effectivement ay body ay yére jigéen ko. yére Mm. xam nga rek am rassemblement moom du kii quoi. aventure nga demoon waaw voilà effectivement. mais ah. nga doo toog dem dëkk jàmm ba pare toog mm. noonu benn instant il fallait ngay bouger. songatu lay def pour mën a dund voilà comme ça effectivement. waaw mm. noonu la demee quoi. d' accord waaw kii da nga ko war a féliciter. maanaam <laughs> moom des fois da ngay gis ñoo xam ne tey. Mm-hmm. muy làmb. Mm-hmm. di football di kii ñoo xam ne gimmeegun ci amagun ci sax loo xam ne tey jii tee nañ ko mais day tax ñu bàyyi métier bi leen suñu borom jox topp ko nag lool tax ñuy galère mi métti loolu ci ñoom ba mooy indi ñaan gu bari gi eh. mooy indi lii des fois nga gis ci ku sonn fekk ah, boo ko laajee ci ginnaaw am na métier bien mi da nga am dignité franchement métier bi daal avant tout mooy lépp. Hmm. amal métier bu ko defee doo dem kenn wala di taxaw ci benn producteur. mais yow tey jii nit mënu la jël sànce. Hmm. far ñu woo la benn kon fekk nga dem nga dem xaalis ba. ah donc comme tey jii nit mën na la jox sañ daal di ñëw ngeen def programme mu ne la kii bi ñaata nga ma koy def rek nga ne ko nangam. Hmm. ci saa si après ñu daal di lay benn programme boo xamante ni bitim réew la ne la contrat trois mois nga bàyyi fa sànce nga bàyyi fa kii ba ah dem topp musique bi est loolu c'est sûr non non ça dépend booba ay waxtaan la rek parce que xam nga tamit kon yow lii mooy wane ni kon gars ku ko bëgg a jox sànce na calculer carrière parce que kii wane na wane na wane na wane na mu musique bi taxawee. waaw mais sànc bi taxaw mu ba sànc bi. mais attends mais damay ànd ak nit di sànc du man kese koy dóor am na ñi nga xam dañ may jàppale ou bien maa ngi liggéey ak ñoom tey bu loolu amoon. Ah, am nga équipe bien sûr bien sûr fu may dem dama yóbbu sama équipe bu ko defee ñooñ laa lay tayle benn instant. ñu liggéey la nice na. waaw noonu la l'essentiel mooy na client bi satisfait rek xam nga booy la lay bàyyee xam nga loolu tamit c'est pas booy na booy ñoo ma gën a taxe ah dama leen former ba benn a taxe sax man mais ci ci amagoo ci amagoo ci ay mm. tournée ay prestations ak yooyu. non am na nag mm. ñu ma doon waxal franchement mais xam naa dafa antoo. da ngay fexe def link bi. waa incha allah non ñu ci rek xam nga comme gars yi ñu waxee rek. d'accord alaaj tëjal léegi line. jaa mm-hmm. mm-hmm. looy tàggatoo. waa di bëggee toujours euh, waa waa Sénégal yëpp rek benn mm-hmm. instant toujours rek la India les lions la lumière mon message ma devise prions parlons et marchons pour la paix la paix et la lumière du monde waaw effectivement nag ñëpp jóg daal rien que pour la paix dans ce pays quoi incha allah ok ok macha allah jërëjëf la India kontaan nañ ci yow mm-hmm. macha allah kon ajaratu euh, léegi nga yaa ngoog la India la woon donc jàmbaar la ñu ngi koy wax mu gën a góor góorlu aussi tamit ci li nga xam ni mooy métier waaye xam nga euh, fi mu atterrir moo baaxut maanaam Sénégal euh, moom moom wax dëgg fa yàlla képp ku bëgg a réussir ci musique bi bul musique caaxaanal bul musique parce que ñi musique doo ngay doxle wutal di gaaruwaale boo mënta gaaruwaale vraiment ustaas yi gaaruwaale sax ñoo dox lépp mais sénégalais moom moo bëgg gaaruwaale ay détails donc détails yooyu boo seetee xoolal réew mi ustaas boo dégg ñu fiy tudd day gaaruwaale woykat boo fi dégg day gaaruwaale defante gaaruwaale yooyu dong mooy yi nga xam ne mooy yi réew mi xale yu jigéen ñi dañuy xëy ba naan bii maa ko moom bii sama territoire la kii naan ko fii moomoo ko fii kii boo ko laalee loolu mooy réew <laughs> da nga ciy gis ku sëy 50 ans taxaw naan bii maa ko laalee gis nga man mii <laughs> na waaye challenge bi yàq na xam yoo xamante ne ay ku ma la gis nga man yow ah. looy tàgg <laughs> wala tàggoo na ba pare ñu dem ñu ngi leen di remercier bu baax Alaaji Sandiogou ak ganam ñu jaajëfal ko mooy Line Dia di la souhaiter un bon vent pour la suite yàlla teg ci carrière bi loxo. amiin amiin